naa xam naa dina ko animer bataaxa merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup alors je viens de recevoir cette bonne nouvelle. Siri Didé oh, merci c'est ça Sidy Diop est libre et racé. en tout cas merci beaucoup ça c'est yéen la borom àcc fan naa mais wàllu affiche la photo de Sidy Diop s'il te plaît. ah mooy ko yéen nekk la borom àcc fan naa. on on on va parler ça pourtant dañ leen doon wax alors. avant ñu terminer débat bi ñu daan jox information que. kii Rissi Diop alhamdulilah yàlla teggi na benn yàlla fu mu toll nii. Euh, nangu na suñu ñaan bu baax a baax. ki la merci beaucoup la doon yéenee Casablanca ñu bu baax a baax. jërëjëf naa ni yéen ñëpp yéen ko doon ñaanal. alhamdulilah même par 30 yem si li nga xam ne nii mooy ñaan yi. Euh, que Sidi Diop na ko yàlla génne fu mu nekk alhamdulilah encore une fois. yàlla def nañ ko ba fu mu toll tey incha allah rabi dinañ mu nekk li nga xam ne nii information bu neex la merci beaucoup à vous tous. alhamdulilah ñaan yu baax a baax na waaw ah ñu ngi koy ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax di di ko ñaanal yàlla nay njiglaayam yàlla nay njiglaayam surtout yàlla nay njiglaayam donc ñibbil sa kër ak jàmm daw sangi ji géej waataa ngay dem sa kër <laughs> cat cat baaxul. voilà donc mi ngi noonu bu rayul semmal. alhamdulilah sant sant sant sant waaw waaw ma man du def lu sant di. waaw sant di ndax foog naa foog naa moomoo man dëkk bii kenn njëkkuma ci wax ni Sidy juum taxaw kaasal ko boo déggee kaasal ko mooy wax ni daa juum ba àdduna yëpp ni daa juum. ma ni waaye ñoo ñaan parce que ay nawleen nangam nangam sàngam. Mm-hmm. fii li nit di def ak lu nit dul def nit sa xol ngay lala yàlla di fay mën nga taxaw nag bi yéene nit ki. Mm-hmm. kaso. wala di yéen nit ki ñu def ko naka sudul noonu waaye suñ borom bu nee du ci dal du ci dal am na ñoo xamante ni moom dañuy sàcc ay millions may ci nit mille francs kañ may mille francs la ñuy borom nag mooy dogal waaw. yaa ngi may fàttali lu neex boo paree ma wax la. wallaay da gis ku sàcc mu un million. may ci nit mill francs ñu jàpp kañ may mille francs dëgg borom ak i ak ak i ndogaloon. mu mu ñu ngi tuumaal nit tëj ko ci kaso yi. nit a ngi sàcc nen. am ku sàcc ay milliards toog ci télé yi di bëri wax. dëgg la de dëgg la de. te kee daa xiif romb nañ toj ñu téye ko trois ans. attends Ousse oh, je vais je vais essayer d'appeler doomu wolof di ji s'il <laughs> man man man man man bugguma bugguma ku yéene nit lu bon. d'accord xaw ma naan la wallaahi j'aime pas. Mhm. man bugguma ku di yéene nit safaan. Ah. ak nu mu mënti mel. man bëgguma ku yéene nit dara. waaw ah, wallaahi. surtout lu bon waaw ah, nit nit nit da ngay ñaanal doomu aadama même xam nga ni ay mbir def na nañu. def na loo xamante ni maanaam tegu ko ci yoon mais ñaanal ko. dëgg la ko. c'est mieux de. waaw dee ko ñaanal ko daal même lu mu def du yoon mais ñaanal ko rek. mu nekk lu am solo alors. kii euh, Nana. Hmm. nga yow sànq la bëggoon gis koo xamante ni. looloo non dama ne da gis koo xamante ni daa nga koy sàcc million. may ci nit 1000 francs ñu tëj kay. kay dëgg la voilà léegi nag ñun ba ba may def classe su quatrième je crois <laughs> quatrième euh, quatrième euh, C1 quoi. Mhm. sama benn waa classe du ma tudd turam nag parce que ndeysaan euh, xam nga de xam naa léegi mag la sax. dafa daan jël xaalisu yaayam ak papaam maanaam xaalis bi yaayam di teg ci kaw coiffeuse bi la daan jël su ñëwee jënd ñu ñun ñëpp ndékki may ñu ay 1000 francs ay 2000 ñu topp ko rek nag topp ndiiraan xam nga ñun dañoo bëggoon lu yomb nag. benn jour yaayam ñëw boole si ko école ba ñun ñim daan may ñëpp mu lim ñu ñu tànn ñu parkaat <laughs> jour boobu du ko mës a fàtte ba ilaa yawmi diin moo tax da wax rek sama xel ne yar ci loolu. Euh, te ñun defuñu lu ñun sàcc ñu yëguñu. ñun dañ doon lekk rek ñun dañ doon mos rek. maa ngi ziar sama yaay ji ah moomu Fama Kassé maa ngi koy ziar wax na lu am solo on félicite son avocat maître Tall. Mhm. macha allah. Mhm. waaw macha allah macha allah macha allah maître Tall. mooy avocat Sonko. taal nga dëkk bi. yow yàgg ngaa taal dëkk bi déet dëkk bi teewul waaw dëkk bi dafa war a tàkk ban tàkk. Mhm. ban tàkk. voilà tàkk bi tàkk bu baax la. ah xalaas tàkk moom. waaw tàkk jàmm baaxul. boo ko taal lamp doo tàkk <laughs> bi tàkk bu baax la. tàkk bu taw fexe la ñu ngi koy ziar bu baax a baax. di ziar it Aïda Goudiaby tey moom dama damay liir. Aïda Goudiaby macha allah boobu tey it yaa ngi ànd ak ñun yaay ñun yéen rek la ñu am di la bëggee bu baax Titi Ba. ba Pullo macha allah Titi Ba ba Pullo jërëjëf ñëpp koo xamante ne daal libéré giñ libéré Sidi neex na la ñu ngi koy ànd ak yow naan la jërëjëfati. ñëpp di ziar tamit Yolande Gomis bu baax a baax a baax a baax. di ko wormaal di ko wormaal di ziar sama yaay ji Fama Kassé du jàll ñu ngi koy wormaal Ndiol Sène waaw Yolande Gomis moom moom fii la bokk sunu Yolande inwaliyen <laughs> na naa wax. xanaa liñ li wooyee sii di bég nga ci inwaliyen na kii wu dégg na ci eh, d' accord na waaye maître baal jàmm yàqat der nga ay sot seen ay da gujaa bi Xadim Mbaye yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax Abdou Diallo ñu ngi koy ziar Ibrahima Palea moom moom fii la. Hmm. Ibrahima kër gi. moom moom kër gi moom kër gi moom mooy diriger kër gi moo ciy def lu ko safta dañ ciy ànd ak moom Kaja jàlloo moom it ñu ngi koy ziar Xadim Mbaye ba léegi di la war warmaal bu baax a baax a baax a baax Marie Pierre Thiam. ndokkeel naa la béggee naa la bu baax a baax li ci des moom moo dina àggal te sax daa mel ni jeex na faf wax dëgg fa yàlla ba jey na ba masa lii jey na ba masa lii maam jaara sow bu sa baali borom poroxaan lay jaar bu baax a baax en tout cas kontaan nañ dégg neen ndax moomu mhm. euh, biñ teekee loxo sii di ñoo ci njëkk a wax mhm. fii la génnee kay te it fii la génne te it ñoo ci jéggalu te it fii nga jooyee mhm. da doon jooy jour boobu naa la ko dagg après yónni bi laaloon na loolu loolu mbaax la rek. non ça ko ma ah. ma touché woon. loolu loolu ñàkk a yéene nit la. loolu ñàkk yéene nit la. Mm. kan moo doon jooy. moom moo affaire bi laaloon xam nga lan mm. pour te dire. moo tax lii moomoo ku naan ram mm. mu amul ram. Mm-hmm. yaa ngi ci erreur. Euh, bu doy. Ah, waaye. magul ma magool Magóor bu Sidi Diop. maa ngi nii toog maay Magóor. waaw demal Magóor baa maay DJ Yves. dëgg la. maay lépp gis nga ñoom moomu. amuñ kuñ fi nga nii indi lu leer gënuñ ñoo leer. dëgg la mais situation. situation bi ñoom ñu ngi fa mais jaru ko de xam nga lu tax. ñun insha allah bi yow wóolu nañ la. te xam nañ ni boo jugee fii. di ci utul leer te barki Cheikhul Khadim. la man nga uti li leer wax ma moo gën may woo qui que ce soit wala di utee ci keneen pour xam ndax sa jikko doy na ma <laughs> te li nga doon da nga kaa matee da nga koy wax te dee. Euh, on parle de Mogol Mogol me rappelle. merci lii laa doon wax ah! ñun du ñu woote woo ñu rek mu leer nañ. ok moom na en tout cas moo koy tax na di euh, salaamaaleykum. waaw may dee. mais Mogol. allo. mais Mogol maa ngi lay nuyu. ay naa si jàmm. maa ngi nii rek cool. maa ngi yaa ngi cool. Ah, maa ngi sant maa ngi sant. alors euh, ñoo ngi ànd rek dañ toog ànd rek ñu jot information que kii di Sidy Diop fu mu toll nii alhamdulilah yàlla euh, def na mu daal di génn ba libre. léegi ñu doon laajte rek ndax information boobu est-ce que c'est vrai pas. Mm-hmm. yi gars yi Mm-hmm. alors ba nga ba gisee information bi yow ku la xam-xam la ak ki nga xam ni mooy Sidy Diop sa doomu ndey la sa lépp la nan nga yëgee information bi. Mm-hmm. waaw kontaan rek kontaan rek parce que nit li may wax rek muy Sidy Diop muy keneen ak keneen ak keneen ay nit ki toll na fenn foo xam ne tamit ci réew mi. Mm-hmm. man ni ma ko yëgee rek na ko ñeneen ñëpp yëgee rek parce que ñëpp a kontaan. bëgg. wax dëgg fa yàlla xëy na justice aussi tamit def na liggéeyam ne moo waroon def aussi tamit def nañ ko te ñoom aussi tamit xam nga. nañ compréhension bu tax tey ñu xam ni kii tey nekk na quelqu'un ci réew loo xam ni tey amaana donte juum la ndax dawal na sans permis xam nga jàpp nañ ko ci defal ko mandat dépôt tey ñu taxaw tribunal bi feesoon dell hmm. wax dëgg fa yàlla ñëpp ñëw hmm. soutenir ko yàlla def xam nga ñu ñu ñu ñu ñu may ko liberté xam nga mu mën a ñibbi tay tay tay tay tay tay bu kër di ci am contentement rek di remercier sénégalais yëpp nag. ay mhm. surtout la presse aussi tamit gis nañ liggéey bu rafet bu ngeen ci def. bu mhm. ngeen ci taxawaay bu mucc ayib daal ñu ngi kontaan ci ñëpp. waaw di rafetlu nag li nga xam ne aussi tamit gars yi def nañ ko xam nga muy def benn mobilisation bu rëy ñëw taxaw moo ñoo leen ko soutenir ko si xam nga di am contentement daal. waaw ndax kontaan moom. d'accord d'accord allo. alors question de réseau la je crois que fu mu nekk peut-être moom moo xaw a euh, ñàkk réseau réseau bi yow tamit ni ngay def réseau bi boobu baax na la. alhamdulilah moom kay jël réseau président wax na l'essentiel presque lépp loo ko bëggoon laaj ana Sidi laa ko bëggoon laaj. Sidi xam naa boo demee. allo waaw kay Magone. Oh, réseau bi la waaye. alors problème réseau la woon. Ah. maintenant ana ana ana Sidi fu mu toll nii. waaw non ñii nii nii xam naa day dellu say bu fekkee ni mën na mën nañ koo bàyyi tey mu bàyyi ko tey parce que Mm, ok je pense que daal tey xam naa ne peut-être lu mu guddi guddi guddi moom xam naa ne këram lay fanaan bi neexee. incha allah dañ doon ragal rek affaire bi xawoon guddee pour mu mu mën a ñibbi këram suba mais xam naa ne daal mm-hmm. ak heure bi ñu ko bàyyi nii. Mm-hmm. je pense que am nañ ci yaqin ni mën na ñibbi këram tey ko mm-hmm. incha allah alors ñu gis seen seen taxawaay yow ak ki nga xam ne ni moom mooy Makhtar Diop Subatel ak label Subatel yëpp taxawaay bi nga xam ne taxawaay ngeen ko euh, lii day wane rek ne Sidy Diop nekkatul ki nga xam ne nii ku tuuti la si bëtu Sénégalais yi. dëgg la. waaw mooy li ma la expliqué léegi rek Sidi bu weesoo moom li mu doon doomu aadama bi mu doon tey xamaa ne yàlla def na ci moom tey mu doon euh, benn euh, kilifa goo xam ne tey bu dul dara xam nga xamaa ne ci li muy yëngu tey tax na Sénégalais yëpp ñëw taxawu tey dooleel mm-hmm. bu weesoo ci li mu doon parce que tamit nekkatul n'importe qui ci dëkk bi mm-hmm. te lii aussi tamit xëy na dina ko servir leçon servir à la leçon ñi nga xam ne tey amaana ci dëkk bi lañ dëkk xam nga di mm-hmm. conduire sans permis ndax lii leçon la rek te ñun ñëpp xam nañ ni aussi tamit moom moo juum te boo juumee yoon mu def lenn lu dul liggéeyam yoon aussi def na liggéeyam xam nga jaarale nañ ko suñ ko war a jaarale aussi tamit Matar taxaw na ci taxawaay bu mucc ayib. utal na ko tey xam nga pour avocat yoo xam ne tey amaana ay avocat yu xarañ ci seen wàllu liggéey ñoo leen taxaw liggéeyal ko moom aussi tamit taxaw ko nekk ni aussi tamit dafa ko doon activité tamit xam nañ ni njuumte la ba tax aussi tamit ñu mën koo bàyyi mu ñibbi këram mais daal li a waxal mooy ki nga xam ne rek tey amaana toog na si ba toog mooy ñu ñëw ak ñu ñëwul ñu mënoon déplacé wu ak ñu mënoon wu ñëpp waaw ndax Matar mooy li may wax rek nit affaire bi mu amee ba léegi nekkul naanul nelawul xam nga man ak moom ñooy yendu suba ak ngoon bu dégg tey amaana bi ñuy ñëw tribunal bi ñëpp moo jël téléphone am yéen ñu ñëwee këram fekk nañ ko mu yeewu ba toog di ñu xaar waaw ñu def délégation aussi tamit ñëw di ko sant di ko gërëm parce que nii la mel moom. Mhm. moom amul fii di amul keneen képp ku bokk ci moom. Mhm. sax nga a bokk ci moom ba nekkee ci naqar di def lenn lu taxaw. Mhm. li mu def aussi def na ko jëlal nañ ko ay avocat yu mag. avocat yu mën ko yoon aussi tamit xam nga jéggal na ko waaw ñu leen remercier rek. waaw di wax di daal vraiment kontaan nañ ci ñëpp quoi. jërëjëf jaajëf Diafar kontaan naa. merci beaucoup kontaan naa trop jaajëf. alors mu nekk noonu mu nekk nga xam ne nii moo nekk Magol nekk ki nga xam ne mooy doomu ndey Sidi Diop euh, da ko fay gis mun naa wax ne ménager son ménager c'est son merci Galaw ngi woote Galaw moo nekkoon. moom mhm. tribunal mu nekk jël woon tamit. macha allah comme sànq léegi comme nu ñu jëlee Magol. <laughs> alors salaamaaleykum. maaleykum salaam. mais Galaw ñoo ngi lay nuyu de ziar. maa ngi lay delloo ziar. bàyyi si jàmm. maa ngi ziar bu baax moom. alo maa ngi tuub bu baax a baax parce que yow suñu DG nga war ñu la sonal. Ah, non yow amul problème yow on est ensemble si liggéey bi la lépp ci liggéey bi la. jërëjëf merci beaucoup alo est-ce que euh, ñoo ngi yëg léegi nag kii di Sidy Diop fu mu toll nii yàlla def na ni bàyyi nañ ko. aha yàlla dogal na bàyyi nañ ko. Mhm. est-ce que mën ngeen jox information yu fa mujj fu mu toll nii. waaw information yu fa mujj mooy parquet bi li mu recueillir li mu recueillir mooy. Euh, ñu dend li nga xam moom mooy relax au bénéfice du doute euh, pour le délit de faux et usage de mm-hmm. euh, mais dafa demande woon à ce que ñu daal di koy teg ay daan parce que li nga xamante ni def na ko du jaar dëgguwul du yoon. Mm-hmm. mais juge bi li nga xamante ni mooy décision bi mu jël mooy def ko relaxé. Mm-hmm. donc information yi la ñu jël si nga xamante ni moom palais de justice bi nag mbooloo mi bari woon nañ trop. ku nekk mu ngi jubilé vous avez certainement vu l'image de la décision. mu daal di def euh, journée bi doy waar mais ci discussion yi nga xamante ni amoon na entre euh, juge bi ak euh, Sidi Diop amoon na benn discussion boo xamante ni ñoom xëy na dañ ko doon def pour daal di koy xamool àddina wala jàngal ko moo tax am na ay questions yoo xam ni posé woon nañ ko mais Sidi il a été vraiment respectueux et humble ndax question bi nga xamante ni madame le procureur laajoon na ko tu avais dit que tu avais une assurance mais expirée au cours de l'enquête Sidi Diop la ko tontu woon ni ko propriétaire oto bi. Mhm. moo ko moo ko moo si juum quoi bi mu koy jaay parce que waroon dem ba mille vingt cinq. ci la ko procureur bi wax ni ko une assurance peut dépasser plus de douze mois peut peut dépasser douze mois alors que l' assurance que vous avez déposée euh, dafa dem ba plus de douze mois quoi donc loolu moo tax ñun dafa utiliser faux et usage de faux nee na du ci moom nga xamante ni mooy ki jaay oto bi nag moo tax gars yi def mooy bénéfice mais aussi wax na ko ni ko document yi nga xamante euh, technique yor nga ko mm-hmm. document beneen ko aussi santal yàlla bi nga xam ne nga suñuy loxo parce que jotoon ci loxo yi waa douane beneen problème dina fii daw dafa waroon a am benn papier boo xam te ni moo ko mënoon a permettre moom mu daal di mu ci daw ci dëkk bi ko euh, am li nga xamante ni moom mooy dédouanement bi ak papier yi nga xamante ni moom la war a am ci réew mi waaw yooyu yëpp daal wax nañ ko dañ ñu ko yow aussi eh, artiste bu toll yow ndax day siwee ñu nga siw te mënoo yor ay papiers yi nga xamante ni mooy tegu ci yoon pour jox ñeneen ñi le bon exemple surtout mais il a été vraiment humble daal di baalu ak ci li nga xamante ni moom moo ko def te xam ni ñëpp xam ni juum na léegi nag eh, li ñëpp doon ñaan yàlla dogal na ko mooy il a été eh, relaxé donc euh, fii ci tribunal euh, bu Dakar. sans sans condition wala dafa am nu ñu ko teg wala ay amende ak yooyu dara amu li ma jot ci première information yi mooy dañ ko relaxé nii sans condition mais saytu ma ko moo tax je la pas m'avancer là-dessus. sincèrement waaw parce que boobu noonu ñu ngi jël réaction ñi nga xamante ne ñu ngi doon jubilé comme le cas de Matar Adjor suba dalee tout. Mhm. pour am les premières images quoi tu vois xam nga yow liggéey bi ni muy ni muy ni muy def. waaye je comprends. effectivement on est ensemble on est ensemble grand. jërëjëf alors moo ngi noonu mu nekkoon alors moo nekkoon petit Gallo bu président euh, PDG Univers Info moom tamit ñu koy jaajëfee bu baax a baax waaye di bu baax a baax nga xamante ni mooy Amath doomu ndeyam ñu ngi koy baax a baax euh, soo tuddee Gallo ngay tudd Mass Mass moom Dakar Live moom loolu moo neex laaj ay vidéo di monté di teg di dugal <laughs> bu baax baax Mass Dakar Live moom tamit alors Ousse moo ngi noonu. waaw santaat rek moom man moom amatuma lu ma ci wax. non quand même. gi daal mbégte woon. ah mbégte na mooy kontaan nañ. Mhm. ci bàyyi giñ bàyyi Sidi man bu ma ko waxee ak bu ma ko waxul xam ñii seetaan xam ne ni man kontaan naa ci. Mhm. te bég naa ci te këpp koo xamante ni foog naa sax xol sell na nga bëggal nit jàmm kontaan nga ci. waaye galo bi muy génn dafa lu am solo. Mhm. maanaam bàyyi gi man su ma sañoon day ànd ak amaan na man xaw ma nag luñ ci jublu. xaw ma ndax def nañ ko wala def nañ ko te am na wala amul xaw ma ci mais na ànd ak moom xam nga lu tax <coughs> dina am njàngale moom am na ci waaye day ànd ak amande bu ko defee nga xam bu baax a baax a baax a baax jëfin gi day am amande bu ko defee nga xam ni am na loo xamante ni def ngeen kat a waru leen ko def bu ko defee bu ko fayee dina am lu muy jëriñ lu mu bon bon bon bon bon bon ci ñun en tout cas bëgg nañ wax dëgg fa yàlla génn ak ñun bëgg nañ ci bu baax tey ñaan suñu borom yi nga xamante ni dara tëwu ko ñëpp ñoo xamante ni dañoo nekkoon ci naka sudul noonu na leen suñ borom sàmm aar leen ba yenn yi sax buñ koy defit ñoom ñoo bañ ko def à cent pour cent ndax dina am ñu bari man xam naa ni leer na ma ni artistes yu bëri bu leen doon arrêté ci lii dineen xam ni lépp dëgg la waaw ndax maanaam kii te nag maanaam sii di ma koy conseillé na ci jàppar rek te gën a góorlu te xam ne dëkkul Gambie ben am passe kii permis Gambie fii la dëkk na ci taxaw bu ko bëggee am da koy am daan defi auto école mun na dawal def li nit ñi war a def dinañ ko utal permis yaa ngi comprendre balaa muy tëdd gëm naa ne permis la waaw yaa ngi comprendre mu uti permis ba pare euh, gis nga maanaam assurance lu baax la parce que ñu ko yàlla si di ko am sens la lii bu doon soog la wala mu laal doomu jàmbur xam nga buñ fi taxaw ñun kon doon doon ñaan waaye dañoo xam ni xëy na arel kii moo tax ñu ñaan moo tax yàlla def moo gën peut-être ci gën a veyew euh, moo tax mu daal def li en tout cas mu nekk ni am solo la na naa ma si kaa bi mhm. pour faale ñoom mhm. ay bi ñuy wax ñoom ñëpp ay ko jaay bi ñuy wax xamu ko te li ñuy def ni diffamation la waaw na ci gën a na a concentré wu rek yàlla baax na moo euh, ngi noonu yow dinaa la porter plainte foo munti nekk bu yow nga xam ko ma am naa permis mais mun maa dawal donc moo solo <laughs> sama kaa alors bi Euh, envoyé naa la benn benn benn sama benn si benn foto indi équipe bu mag bi Ousse kon ñoo ko doon waxtaanee fii bi nawet laay xaar moom indi ma photo yi ba pare.